jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu site internet bii di bawal info point net tey nag dañoo bëgg dikk ak yéen ci benn euh, xibaar benn scandale scandale boo xam ne fii la xewee ci Touba scandale bu mel nii musu leen ko dégg Touba tey jii nag ñoo ngi ci àjjuma fukki fan ak ñett ci weeru décembre atum 2019 xam ngeen ne bawal info point net da leen di jox ay xibaar yoo xam ne yuñ dut laam-laamee waaye ay xibaar yu leer yoo xam ne yu wérte wóor la scandale bi nag doy na waar genn xeetu doy waar goo xam ne fii ci Touba ñoo ngi koy waxtaanee ndax mbir mi dafa garaaw mbir mi dafa doy waar dafa am ñetti nit ñoo xam ne instant bi may wax ak yéen ñoo ngi ci kaso bi kenn ki ma ngi ci kaso bu rëbës ñaar ña ay jigéen lañ ñoo ngi ci kaso bu camp pénal léegi lan moo xew euh, li xew mooy xam ngeen ne fii ci Touba am na benn pharmacien bu mag bu tudd Moussa mbay Moussa mbay jàpp naa ne kenn du ko laam-laamee fii ci Touba ñëpp a ko xam Moussa Mbaye moomu nag jamono ji dañ ko yóbbu ci kasu bu rëbës même musaa mbay doomam bu tudd euh, May mbay ma ngi ci kasu bu camp pénal jee màkk ma ngi ci kaso bu camp euh, kan mooy jee màkk jee màkk xaritu May mbay la may mbay mooy kan doomu Moussa mbay la kan mooy Moussa mbay pharmacien bu mag la bu ñu ràññee fii yu Touba ñett ñépp jamono ji ñoo ngi kaso lan lañ def bañ yóbbu leen kaso euh, ñett ñii nag Moussa mbay ma ngi ci kaso bu Rebeuss moom ngeen di gis ni ñaari jigéen ñi mooy May mbay ak Dié Màkk ñoom ñaar tamit ñoo ngi ci kaso bu Camp ñoom ñett ci commissariat bu palaato commissariat bu palaato sa dakaar fa lañ leen doon entendre mais lan lañ def moom laa leen di wax wala lan lañ leen di tuumaal. ay bés yi ñu génn maanaam semaine yi ñu génn euh, dafa am benn benn soxna benn soxna boo xamante ni soxna su Mbàkke Mbàkke la fii ci Touba waajuram nekk kilifa gu mag soxna soosu soxna su Mbàkke Mbàkke si ay photoom euh, dañu ko gis. ci réseaux sociaux yi mu nekk photo yoo xam ne foto yu doy waar la foto yooyu dañ see joxar bi baaraamu tuuma ne may mbay mii ngeen di gis ak xaritam bii di jéem màkk ay complice lañ ñoo jël photo yi wasaare ko ci internet bi te mu nekk photo yoo xam ne photo yu doy waar la euh, may mbay mi ak jéem màkk ñoom la yoon njëkk a teg loxo ginnaaw bi soxna si mbàkke mbàkke si porté plainte mais soxna si mbàkke mbàkke si tamit am na yeneen mbokkam yoo xamante ni taxawu nañ ko ci mbir mi ndax ndax euh, soxna soosu am na lu ko naqari ay mbokkam am nañ lu leen naqari bi ñu gisee photo yi ci internet léegi ñaar ñi bi ñu leen téye ci commissariat bu plateau di leen enquête di leen laaj enquête bi li mu jot a wane ak li si jot a xam ni xibaar mooy mbirum règlement de compte maanaam may mbay mii ngeen di gis moom lañ tuumaal ne moo wasaare photo yi bi ñu leen di déglu def leen garde à vue Moussa mbay moom tim baayu may mbay dañ ko woolu pour déglu ko bi ñu ko dégloo dañu ko def moom tim garde à vue ndax dañu jàpp ne laale na ci mbir mi léegi nan la ci Moussa mbay mën a laale doomam ji di May mbay laale ci lan moo lié May mbay ak Moussa mbay ci photo yooyu ak lan moo tax ñu siy tudd réglement de compte li tax loolu ak li ñu jàpp mooy Moussa mbay mi fan yi ñu génn wala semaine yi ñu génn wala weer yi ñu génn dafa amoon ay kàddu yu ñàkk worma yu Moussa Mbaye yëkkati woon teg ko ci genn kilifa gu mag fii ci Touba kilifa googu musaa mbay waxoon kàddu yu ñàkk war ma yooyu bañ tegoon loxo musaa mbay ba Moussa Mbaye di jéggalu kilifa googu la doomu Moussa mbay jël fotoy doomu kilifa gi ci li wax ci xibaar tasaare ko ci internet bi lii moo tax ñenn ñi njortu règlement de compte ndax xale bu jigéenu mbàkke mbàkke bi waajuramu góor moom la Moussa mbay waxoon kàddu yu ñàkk war ma bañ teg ko loxo bi mbir moomu jàllee nag doomi Moussa mbay moom lañ tuumaal ne moo jël photo yi doomu kilifa mbàkke mbàkke gi Moussa mbay waxoon kàddu yu ñàkk war ma yi tasaare ko ci internet bi maanaam dañoo njort ne doomu Moussa mbay day fayul baayam mbir mi garaaw na genn xeetu garaaw goo xam ne fukk waaye natt paase nag ko jamono ji nag Moussa mbay ma ngi ci kaso bi doomam May mbay ma ngi ci kaso bi jee màkk mi nga xamante ni xaritu May mbay la moom tim ma ngi ci kaso bi léegi nag mbir mi dafa des lu garaaw a garaaw a li ci kanam nag rawti bët jamono ji moom la ñépp di waxtaane tey la àjjuma fukki fan ak ñett ci weeru décembre dimanche incha allah bawal info point net dina ci siwaat ba mu gën a yaatu